xale yi Taïba yi ci jàppale bi ñuy jàppale ci ci liggéey bi ñu nekk ah, di remercier également l'ensemble yi ñu àndal ci liggéey bi pour que ñu mën a quand même arriver à l'objectif mooy mairie Nabadji Civol loolu weesoo aussi maa ngi nuyu seen auditeur ak seen auditrice tudd Djibi Dieng donc euh, dëkk dëkk bu tudd tayba donc jàngee maat euh, élémentaire ak collège jógee ko dem Saint-Louis euh, niveau du lycée Faidherbe pour la ñu amee bac jógee ko dem université en maîtrise en physique et chimie biñ fi jógee nag ñu dem école supérieure intra-africaine d'électricité fa la ñu génnee ak suñ diplôme d'ingénieur euh, biñ fa génnee lañ intégré la société d'électricité du Sénégal lañ nekk léegi actuellement je m'occupe de la direction de l'électrification euh, ci société d'électricité boobu euh, liñ ci dugal mooy indi réponse ci problème euh, population bi lu ñuy dund ñëpp xam nañ ne tey euh, population bi tey am nañ ay yenn jafe-jafe yi donc ñun suñu engagement mooy ñëw xool nu ñuy indee benn réponse par rapport à ces problèmes deuxièmement aussi nu ñuy ñëwee pour dimbale population bi pour que ñu mën a euh, développer suñu suñu gox ak suñu goxaat yi parce que tey nañu buñ toogee seetaan yaakaar naa ne xëy na li ñu bëgg ci suñ commune de sotti donc il faut que force vive commune yëpp jóg ànd liggéeyandoo pour que mën a développer euh, commune bi donc loolu mooy suñu suñu engagement mais aussi appuyer également le chef de l'État par rapport aux actions qu'il mène dans la commune pour que ensemble ñu mën a indi réponse vraiment au problème euh, de la population waaw comme ni ngeen ko xamee bi ñu commencé léegi wax dëgg yàlla wër nañ dëkk yi donc euh, rencontre nañu population yi vraiment wax nañu tamit seen problème problème bi nag bëri na. Euh, am na ci éducation bi am na ci santé bi am na ci électricité bi am na ci euh, bi am na assainissement. donc problème bi daal bëri na problème financement jigéen ñi problème. xëyu xale yi ah, problème njàng mi loolu yëpp ay problème lu ñu rencontre la ñu recensé ko donc euh, def ko benn euh, de document incha allah ci loolu programme bi ci lay tëru ak yeneen yi nga xam ni am nañ bébét pour mun ko def ci commune bi. donc problème mi daal comme ni mu leen xamee bëri na waaye nag mënuñu toog fii tey di koy détaillé mais li ci ëpp nag ci axe yi mu leen wax léegi la mooy ci santé ci éducation. ci financement des jeunes financement des femmes ci xëyu xale yi voilà yooyu yëpp ci lu ñu rencontré la ci électricité bi accès à l'eau yooyu yëpp ci problème yu ñu yooyu incha allah daañ ci ñu koy taxaw pour xool ñu koy ñu approfondir waaw les solutions nag yooyu moom identifier nañ ci solution yi par exemple bu ñu jëlee éducation recensé nañu ay problèmes yu bëri y a des problèmes quand même euh, général mooy lu jëm ci ay affaire euh, table baay lu jëm ci affaire fourniture yi euh, lu jëm ci affaire sécurité lu jëm ci affaire encadrement loolu yëpp nekk na ay nga xam ne yi bon ñun li dañ ci apporter solution rapide incha allah bu ñu yàlla may ñu ñëw pour régler problème yooyu donc am na yeneen problème yi problème beaucoup plus structurant nga xam ne également dañ ko jël soumettre ko à l'autorité pour que ñu mën a indi ay solution par rapport ak loolu bon euh, problème de santé bi aussi noté nañ que euh, centre santé ak district yi fi nekk yëpp yu ci bëri aussi ils sont mal équipés donc am na nga xam ne sax amuñu amuñu sécurité donc euh, am manque de personnel également loolu yëpp nag nga xam ne ni pour ñëwee daañ ci taxaw pour régler ko lu jëm ci également affaire wu éclairage ak sécurité publique bon ci loolu aussi gis nañ dëkk yu bëri yi nga xam ne tey éclairage ci manqué na extension yi manqué na ci loolu aussi daañ ci taxaw liggéey ci euh, remettre en état l'éclairage public renforcer ko pour yokk sécurité bi remettre euh, essayer aussi de travailler pour l'extension ci zone yi nga xam ne euh, amuñu électricité loolu yëpp ci ba nekk la nga xam ne ñu ngi ci programme bi daañ ci liggéey bu loolu weesoo aussi y a problème d'accès à l'eau am na dëkk yi nga xam ne yu bëri tey am nañu problème accès à l'eau loolu aussi dañ ci taxaw pour xool lu ñu mën a raccorder incha allah village yooyu nu ñu mën nu ñu mën a def que ñu am ndox mu yombaleen ñu man a liggéey mën a aussi utiliser ndox mi pour man ci bay loolu aussi c'est important donc euh, mi ngi mi ngi ci solution yi ñu bëgg apporter. bu jëm aussi ci xëyu xale yi bëgg nañ aussi regrouper xale yi balee leen dajale leen euh, utal dafa leen ay formation professionnelle man leen encadrer utal leen ay financement comme li ma waxee tey Fouta am nañ avantage am nañ ndox am nañ euh, ngelaw am nañ naaj am nañ suuf donc la moo des mooy exploiter loolu ressources yooyu ñu am pour que xale yi dellu ci suuf si mën a liggéey euh, pour que mën a am xëy mën a développer aussi seen bopp ci côté boobu donc pour jigéen ñi aussi comme ni ñu ko waxee am na xam ni déjà am nañ seeni i groupement ba pare ñi amul dañ leen encadré ñu am bu ñu amee ba pare jëm leen utal ay financement jàppale leen également ci suuf si pour que ñu mën a am fu ñu fu ñu liggéeyee ñoom aussi ñu mën a am dara dimbale également seen Eh, ci programme bi la bokk sport bi aussi mi ngi ci programme bi yéene nañ également jàppale ASC yi parce que nañ également renforcer eh, stades yi de defal leen ay stade moderne loolu yëpp mu ngi ci mu ngi ci mi ngi ci ci programme bi ak eh, ba bàyyi bàyyi ñu aussi yeneen sport yëpp muy course épique muy basket bi football bi yooyu yëpp mi ngi ci programme yi incha allah am na ñoo xam ni taxaw nañ ci pour apporter leen benn réponse que jeunes yëpp mën ci gis seen bopp waaw loolu aussi étudiants yi aussi même chose incha allah dafa nekk nga xam ne aussi dañ leen gis waxtaan ak ñoom essayer si de les trouver des solutions par rapport ak problème yi ñu am muy logement yeeg ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne dañ ci mën a taxaw pour apporter des solutions yooyu mi ci programme bi donc euh, xëy na mënuñu détailler lépp tey waaye nag loolu moom mbokk na ci suñu mbébét yi nga xam ne yu gën a urgent ñu war a taxaw incha allah bu waaw certificat de résidence comme ni nga waxee effectivement au début amoon na amoon na problème waaye waaye fin bi quand amoon na solution yu ñu ci apporté à travers euh, les discussions yu ñu jot a am ak euh, autorités locales yi donc euh, fi mu nekk nii daal problème résidence posé gul réel moment bi mu leen di wax mais lu ci am rek dañ koy remonter également pour trouver des solutions waaw l'immigration clandestine moom euh, ñoom dañ koy condamner parce que aussi yéen ñëpp gis ngeen li xew ci immigration clandestine suñuy doom suñuy jërbaal ñu fi jógee daanu ci géej gi di fi ñàkk seen bakkan loolu kenn bëggu kenn ñaanlu kenn donc lu ñu bëgg rek mooy xale yi aussi fekkente ne mënuñu am immigration régulière que vraiment ñu de dellu ci dëkk dellu ci suuf si dellu ci mbay mi parce que pour noonu bu ñu delloo ci suuf si ak si mbay mi encadré leen war nañ mën a tey am xëy foofu parce que tey euh, suuf am na Fuuta ndox am na fa buñ ko exploité war nañ mën a am xëy yaakaar naa loolu mooy solution par rapport ak euh, pour lutter contre l'immigration clandestine comme ni ngeen xamee immigré yi dañu am part bu mag ci ci commune bi parce que euh, ñëpp xam nañ ne tey émigré yi ni ñu taxawee ci ci ci Fouta donc surtout commune Nabadji Civol xam ngeen ne suñu mbokk yi ni ñu taxawee ci développement commune yi gis ngeen yéen seen mbokk te am na structure yu bëri yu fa def immigré yi ñoo ko def donc ñooñu liñ man mooy gën leen a jàppale parce que ñooñu il faut ñu jàppale leen bëgg nañ dëkk bi jëm kanam donc comme ñooñu dañ ñëw pour jàppalee ñu mairie moo war a taxaw ànd ak ñoom ci liggéey bi pour que mu jëm kanam cest à seen mbébét mooy développer commune bi ñu ànd ak ñoom structure yi ñu bëgg ñu leen di accompagner di leen di faciliter tamit liggéey bi donc lu ñu jóg pour def ko ñu ànd ak ñoom def ko ñun aussi lu ñu jóg di xeex woo leen ànd ak ñoom liggéey ko pour que boole doole yi pour que commune bi jëm kanam loolu daal mooy euh, vraiment suñu collaboration bi ñu bëgg am ak ñoom bu loolu weesu aussi incha allah bu ñu jëlee mairie bi. foofu association nekk nekk ci commune bi daañ jóg seeti la te bu ñu la seetee incha allah bëgg nañu également euh, luy ay coopération ak dëkk yooyu ay coopération ak organisme yi fi nekk ndax ñooñu aussi mën a apporter dara suñ commune bi ndax commune bi mën a jëm kanam loolu daal fànn boobu lañ bëgg a vraiment développer collaboration yi ak suñu mbokku immigré yi. waaw li ma li may wax guy bu jeune commune que kenn tey mënul développer commune bu dul ñoom donc ñoom ñoo war a am benn engagement par rapport ak seen commune engagement bi nag day nekk la nga xam ne li ñoom ñoo dellu ci commune bi liggéey commune bi euh, ànd ak mag ñi fa nekk ànd ak cadre yi fa nekk essayer euh, développer euh, commune bi ci fànn yëpp nag muy ci éducation bi encadrer xale yi fa nekk muy ci santé bi jàppale aussi euh, paj mi ci suñu mbokk yi ak yeneen fànn yu bëri mooy sport beeg yeneen yooyu yëpp xale yi li may wax ci jeunesse bi ñoo war a xaw ci loolu pour que vraiment commune bi mën a gis seen bopp ci développement euh, dëkk bi. dernier mot surtout. ci jëm ci affaire xale laay wax étudiants yi ah. da leen di encouragé gën a góorgóorlu seen jàng parce que pour que ñu man a nun ni li ñuy wax nii mën a développé d' abord il faut que njàng mi am seen compétence pour que ëllëg yi ñu bëgg def yëpp ñu def ko donc ñoom il faut ñu il ñu mën a góorgóorlu d' abord seen njàng beneen bi mooy jeunesse bi aussi dañuy góorgóorlu ci vraiment ci ci ci liggéey gën a gën a gën a jàpp ci li ñu nekk gën a xam ne aussi ñoom ñoo mën a jàppale seen population loolu daal man laay gën a renforcer jigéen ñi aussi vraiment di leen di gërëm parce que ñoom aussi euh, vraiment gis nañu seen taxawaay ci diwaan aussi vraiment mooy li ma bëggoon wax ne ñu ñëpp nañ jàpp incha allah commune bi buñ ci ci taxawee bu neexee yàlla euh, li ñu bëgg li ñu ne ma yëpp daañ ci mën a daañ ci mën a taxaw euh, pour que mu jëm kanam